chose mhm. que dans ces histoires de grève là que j'ai lu ma bëgg a xam. mooy <laughs> da nga professeur. <laughs> mais depuis de ma bëgg <laughs> nga lu ma bëgg a comprendre. Mhm. mooy député je veux ah. ak list Benno Bokk Yaasa. astafurlah bi am problème de parité. est-ce que list boobu lañu ñu validé. wala dañ leen a bàyyi ñu am ñu am moment change def changement. dañu am moment ñu changé léegi. def nañ changement yi war yëpp def nañ changé ba respecté parité rek waaw dañu ñëw jox leen ba pare ba pare bii ba pare déedéet déedéet ba pare bii non non non loolu loolu loolu c'est interdit c'est une violation du yoon c'est-à-dire que xam nga xam nga xam nga professeur. c'est que man je veux comprendre quoi. waaw d'accord mais mais mais xam nga tey. liste bi bi ñu xasee ba jël ko. yóbbu foofu ba ñu validé ko ba ne teg na jeex na c'est fini ci li ñu demoon tey c'est fini. kenn amatul droit ñu fekk liste yi mu nekk ñu nga ñoo taxaw ne di nga kenn amu ci droit. la loi ne prévoit pas. non non non ci lii am mënu mënul nekk xam na lañ ko war def ça doit faire l' de rejet mënul dem parce que dañu jël ñetti góor tegle leen loolu mooy affaire bi ñoom ñu def recours yaa ngi dégg ñu fii leen ko ñu def recours recours ci boobu recours ci parrainage yi euh, Benno Bokk Yaakaar. parce que Benno Bokk Yaakaar dañu am non seulement dañu dépassé nombre bi d'une personne moo tax même une personne boobu nen na wax léegi une personne boobu c'est important parce que une personne boobu seen ko ah, ah, def recours donc une personne boobu dafa am importance ci loolu nga xam ne dañu war a ñu def recours et sur et sur Yewwi et sur bu Benno bi ak bu Yewwi bi yëpp ñun dindi ko teg fële ku ne ñu accepter la sa bos noonu la demee. moo tax ñu wax waxu baara baara moo tax gars di wax waxu baara yu man nag ma ne waxuma sax. bu nguur bi ak ma sàmm ak ma dem. bu fekkee ku nekk da nga ne il faut respecter la loi. Mhm. nous sommes dans un pays d'état droit. la primauté de la loi mooy xam naa ne jalgati naa même boo ma joxee dëgg may la ah, yoon <coughs> nañu waxal euh, ci Omar ñun ñëpp nañu respecté loi. voir des gens faire ça euh, on se pose encore des questions. mais mais mais moom laa lay wax. mais ah, justement foofu ci ci ci Thierno laa bëgg ñëw tuuti laata ñuy dem ci ci professeur parce que euh, ñu ngi pointé du doigt conseil constitutionnel waroon na warul mais du moment permettre nañ leen tey euh, ñu changer seen liste waa Yewwi Askan Wi euh, est-ce que du ñu heurté wu ci beneen blocage moo di góor moo waroon remplacer góor jigéen moo war a remplacer jigéen laata ñuy dem sax ci benn bokk. mais question boobu conseil constitutionnel constitutionnel réglé wu ko même même même liste liste bi. Mm-hmm. liste bennoo bi kenn notifié wu leen ne euh, euh, c'est irrecevable. c'est-à-dire que le ministre de l'intérieur a deux mm-hmm. suñ defee kii de irrecevabilité bi pare. su gisee benn bu irrecevable il a deux jours pour mu notifier ko mandataire bi. Mm-hmm. ne yow sa dossier sa kii dafa irrecevable. dans cette période kenn rek lañ notifié ne c'est irrecevable mooy la liste de Dakar. alors qu'au même moment il y avait problème dans la liste nationale de Yewwi la liste Dakar de Yewwi fekk au même moment Benno avait un problème de parité notifié wuñ ko il y a aussi un problème de doublon dans la liste de de donc Euh, am na yu bëri yoo xam ne ne dafa mel ni ñoom seen seen rôle de contrôle defuñu ko dafa mel ni bu bu bennoo bi par exemple ñaar yooyu daje xam nga soo tiimee feuille yi waaw soo soo xoolee feuille yi ñaar yu daje kay mu nga ko gis. du parrainage bi wala. du parrainage bi boobu. première chose non non non du parrainage bi si li sii la. voilà donc donc loolu la euh, xam nga mbir mi. dafa am <laughs> dafa am ñu may tooñ dama yow da ngaa bëgg expression boobu nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. <laughs> xam nga loolu. c'est une expression. mën nañu wax jurisprudentielle. mënoo mm-hmm. ne man li ma def baaxul ba ñëpp dégg ko. ba pare mu mën a baax mënul nekk. Mm-hmm. maanaam tey ñi ñi miin miin ja nekk en cause ku si ne si ñoom nee nga sa moroom baay baay mm-hmm. dégg nañ ko te yow ki ngay wax nit ki bàyyi bàyyi loolu moo la dal yow it moo tax mu wax la bàyyi bàyyi donc xam nga loolu du woon sa difficulté en réalité du woon difficulté maintenant euh, nee nga léegi nan la affaire yi di mujjee affaire yi jeexagul parce que je t'explique dañuy nekk ci benn niveau de procédure mm-hmm. cest à que su dee notifié nañ la ne la sa liste baaxul loi bi da lay may dans les vingt quatre heures nga saisir le conseil constitutionnel qui a trois jours pour statuer. Uh-huh. su statuer léegi ñu joxe léegi ba mu statuer moom dafa ne vide dafa am. Uh-huh. dama ne kuy ñëw ne ko damaa bëgg nga àtte ma daf ko ne man loi bi laa wékku pour nga àtte ma mu ne ko tegal foofu luwaa bi maa lay créer vide. y' a pas de vide en réalité. moom sa à man dama ñëw ne la fii dama fi war a toog parce que loi bi moo ne. fii dama fi war a toog mu au lieu mu xool ndax loi bi article yooyu ma ko indil mun na ma permettre man ma toog mun a tegal fële say article man maa lay wax nan moo tawar a tax mun a toog. Mm-hmm. en le faisant mu ibbil buntu keneen. c'est tout donc fu mu nii li am mooy list Dakar mun a demaat conseil constitutionnel liste nationale bu Benno mun na dem conseil constitutionnel. Mm-hmm. liste nationale bu yow mun na dem conseil constitutionnel. même suñu list mën a dem conseil constitutionnel maanaam dafa am beneen délai boo xam ne au plus tard le 31 bii. oui publication. mën a doon lundi mën a doon mardi au plus tard dañuy publier suñu publier dañ koy notifier mandataires yi su ko defee mandataires yi parce que sur la base de de l' article L 084 dafa ne lépp yu question yoo xamante dafa jëm si L 179. Mhm. L 180 L 083 183. yooyu mën nga ko yóbbu suñ la ko notifié mën nga ko yóbbu conseil constitutionnel te li ma la mujjee wax ni donc mun nga jël mbir mi nga yóbbu conseil maanaam fii lu fi conseil defagum c' est encore provisoire. mais ba muy remplacer dafa ne mën nga remplacer léegi nag suba mun a taxaw ne waaw mënoon mën nga remplacer parce que kenn warulaa tere remplacer parce que loi bi waxul ne war war doo remplacer waaye nag ba ngay remplacer. da war a tënku ci lii. danga waroon def góor remplacer jigéen wala jigéen remplacer góor. mais nag Thierno la place ne mën na ko. dafa ne non non. non na ko. c'est li nga wax dëgg la. parité. mën na la. waaw ko mën na la la parité ko la voilà très bien je na ko voilà c'est-à-dire que dama bëgg wax ne no li ma bëgg a wax rek sëñ mooy li ma bëgg a wax sëñ Saliou mooy mooy pouvoir am jeexagul mhm. maanaam pouvoir am jeexagul si liste boobu. oui liste boobu pouvoir am jeexagu si. maanaam mun na la mun na leen gañaloo une bataille leur faire perdre la guerre voilà maintenant du ba si sori mais li ma la bëgg a wax rek mooy que ni mu defee loi boobu très franchement mm-hmm. c'est une décision politique oui mais justement euh, euh, Thierno. Euh, suñu dañoo bëgg sauver rek benn bokk suñu waxee ne c'est une décision politique est-ce que yaakaar nga ne que dinañ dem au-delà bay ñii di perdre la la la bataille ou la guerre. dinañ dem ba. oui. Thierno Alassane. bu mhm. fàtte ne il a été interpellé par des membres de la société civile. oui. par rapport à cette situation la ne pour jàmm réew mi pour li moo ko wax. oui bien sûr. moo ko wax. mais oui pour jàmm réew mi ak yenn dañu bëggoon vraiment bu conseil constitutionnel jëlee décision. Mhm. kenn bañ loolu xam nangu na ko. mooy mooy bi ñuy bi ñuy dénoncé moo tax ma ne est-ce que kon euh, les dés ne sont pas ne sont pas jetés alors dans ce cas. pour kan. pour autant pour Benno que pour Yewwi est-ce qu'on peut aller au-delà ba ñuy dem di xalaataat defaat recours conseil constitutionnel bay dem bay bay bay rejeté bay rejeté. <laughs> xam nga xam nga xam nga recours mooy mooy lu ma la wax c'est-à-dire que recours yi. nous parler de conseil constitutionnel ci lii. parce que ñoom si suñu parrainage suñu recours xam nga fu ñu renvoyé ci procès verbal bu commission bi mu ngi nii mooy procès verbal bi nga xam exposé naa ko fépp nga xam ne fii nga xam ne sax ñun amuñu fa déposé ñu ay parrain parrain dañ ko bàyyi bureau muy diaspora dañ ñu fa jox ay parrain foofu lañu ñu conseil ñun suñu parrainage yu dañ ko bàyyi bureau yóbbuwuñu ko mais dañu jox ay parrain foofu la ñu conseil constitutionnel foofu la ñu renvoyé dem leen ci procès verbalu commission bi mu ngi nii muy Mauritanie muy France muy euh, Guinée Bissau muy Espagne muy États-Unis Côte d'Ivoire Grande-Bretagne yëpp daf ñu jox ay parrain te ñun déposé ñu parrain diaspora conseil anticonstitutionnel foofu la ñu foofu la ñu ne nañu dem foofu si commission bi li ñu jox commission boo xam ne sa tur sax mënu ko génne la grande coalition gëm sa bopp suñu chèque yeeg lépp lépp lu ñu mën a la grande coalition gëm sa bopp on nous impose de mettre gëm sa bopp mu doog a jàll en majuscule. et puis na une décision. une décision bu ñu génne le 21. d'accord bu ñu paree le 21 ñu génne le 24. 24 xam nga xam nga xam nga gis nga. gis nga le mhm. dafa war a joxe décision par rapport à son intime conviction. ce qui gis nga. logiciel boo maîtriser wul mënu mënoo si am intime conviction mu nekk parce que ñoom suñu leen renvoyé si procès verbal procès verbal bi nga xam ne ça dire que juge bi léegi tegatul les faits xool parti yi mën ràññee dafay wóolu rek ñee lu ñu def loolu jugement day doy waar su amee vous êtes presque parti au procès presque parce que yow ñooñu nga ñooñu ñoo tax nga def recours ñoom ñoo la jox décision nga def recours donc vous êtes deux parties ñu ne la déedéet si kooku nga def recours kook nga war a dem wékku ji. ça pose problème en réalité ay songe ça pose donc c'est pour dire rek que ne sur cette ah, question très franchement ñun bett ñu parce que dañoo dañoo woote point de presse bañ commencé ba léegi defuñu bëri bëri ñu nga nee ne dama lay wax benn affaire ñun on a beaucoup subi par rapport à la loi énormément subi ah bon énormément énormément tey am na suñu responsable yoo xamante ne su liste yi génnee dinañu mere xamul li tax. Hmm. parce que dañoo forclos ci département yooyu parce que y a boo xam ne ne samedi la weekend bi la la tombeel mënuñu woon jot yenn papier pour mun a compléter yenn yi. casier hmm. judiciaire casier judiciaire yooyu on était obligé ñu dem déposer noonu. Hmm. te pourtant am na ay coalition yoo xam ne. 48 heures dañuy ñëw ñu dugal leen salle ñuy defar seen liste confectionner la loi est très claire hmm. yow ñu may la ngay confectionner sa liste ba délai ba passé. 48 heures après ah minuit la waroon jeex le dimanche. loolu fu ko teg cest à xam nga gis réew mi gis nga gis nga nag saa réew mi nañu rek doxal yoon. Hmm. yoon ma Samba tuddul ma Demba. impersonnel. la loi elle est générale elle est impersonnelle. La loi s'applique à tous, erga omnes. Mhm. La loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex sed lex. Mhm. donc pour man tey waruñu toll sax fu ñuy nekkee di jàpp ne war nañoo néewal doole ñi war nañoo kii la léegi foofu laay daanelee d'ailleurs ki ki Omar wax na si léegi mais yéen ñëpp dégg ngeen ay nit yu taxaw ne affaire bii nañ ko teg si suuf. Mhm. mais am nañu si dox. parce que su pour pour soi-disant que dëkk bi dafa nar a tàkk dafa nara lii dafa nar a lële mais c'est inacceptable dans un pays de droit. ñu am comportement yi mel nii. inacceptable. il faut pas il faut continuer si votre démarche. alors l'histoire jour quelque chose cest mhm. à boo nekkee si sa nga xam li nga nekk nii dëgg la boo ci nekkee gël soit un Galilée un jour viendra. accepter d'être un Galilée dañuy wax ni ñuy wax parce que ça les intéresse ñoom. mais yéen fi ngeen nekk ci loi ngeen tënku ci dëgg ngeen tënku continuer leen foofu loolu mooy yoon mais bu leen reculer mukk bu leen bu leen nit wax wala nit kii leen quoi que ce soit ba ngeen reculer ci position bi nga xamante ñëpp xam nañ ni lii mooy yoon. d' accord euh, dinañ ñëw ci Guèye également ñu wax ñu mu wax ñu lan mooy euh, étape euh, bi ci topp parce que gis nañ ne que yéen ngi quand même euh, dialogué di xool un peu euh, comment résoudre ce ce, ce problème wala cette forfaiture Cheikh rapport justement à ces listes coow bëri na trop. ci waaru parce que. Guèye li muy li muy expliqué. dama ko après je me perds quoi. Sénégalais yi se perdent. Euh, xam naa ni nga xëccaat sama nopp. je peux pas ne pas me prononcer sur ce qui s'est passé à Tivaouane. après demain on va avoir beneen. non mais a